suñ li moo waral ñu génn génn ci ndox mi naa jaaxle ànd ak jaaxle rek ci ginnaaw bu ñu santee suñ borom julli ci yonent bi ñoo ngi sant sëñ taxaa Mbàkke di ko ñaan mu yàgg fi te wér di ñaan nag di ko ñaan suñ kàddu yi mu jot ci ba man ñoo dimbali ci ndox mii ñu wutal ñu ay kanaal ndax ñun at mu jot ñun dañ daan fate ñun ñu daan fate léegi ñoo ànd ak ñoom génn ñoo ngi génn suñ njaboot gi sa ñu ne dénkaane ji amuñu lenn loo xam ne mën nañ ko mën noo def dara suñ ko ne jàngeetuñu dematuñu dara kenn mënatu a génn liggéey ndax boo génnee defe nga ne boo ñëwee fekk sa njaboot lab wala tamit amoo foo togge amoo foo defee dara ñi nga xam ne yàlla suñu borom nattoo na leen amuñu fenn foo xam ne mën nañ faa teg jaaxle lan def ànd ak ñoom nag ñun ah, ah, mbir nag bu demee ba ñu ànd na ñi la daan fat ànd ak yow di génn xam nga ni metti na te ñun nag suñuy mbir diisuñu ko kenn ku dul dëkk bii di sëñ Muntaxa ndax ñun sëñ Touba lañ yaakaar tey moom lañ yaakaar ëllëg di taalibe Cheikh Massamba Diop Sam ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak ñëpp gaa yu baax yëpp ñoom lañ yaakaar di di ñaan dimbal nag sëñ ba siiru mu déggunu surtout ndox mi ba wutal ñu ay canal fukki at ñi ngi koy ñi ngi koy dund léegi nag tey moom suñu borom dafa dogal déggoo li ma la wax ci biir wax ji ñun ñun ñi xam ne ñoo daan fat nit ñi tey ñoo ànd ak ñoom génn foofu kay jeex na léegi nag bu ñëpp àndee génn fu nu jëm moo tax ñuy ñaan wallu di ko diis ñu ko kenn nag kuru sëñ Muntaxa Mbàkke borom dëkk bi. fekk daw def noonu maanaam ñàkki canal moo ko teg mun aman kanaal yoo xam ne ndax waa tu waa euh, fii waa kanam ñëw woowoon nañ leen wallu ñu ñëw ñu ne amuñu benn solution bu ñu dimbalee ndax amuñu canal yu ñu ko defal mun amani kanaal nag. lii lépp dana tàggali koog moom jafe-jafe ndax man mii di wax ak yow maa ngi nii am ku ma doon woo tey doo am téléphone bu ma wuyoo ndax ah, sama kër damaa génn dong am ku deen sama ginnaaw mang ci wetu këram mu xaw a wow may génn di xool naan suuf gis naa ko taxaw aw yoo matt ma fa ma doon dóor yoo sama portable tab bi ca biir ba maa ngi nii ëmmatuma sax lu ma wuyoo. ndox mi lim ñu yàqal bari na ndox mi wér gi yaram lañ jëkk lañ jëkk a jooytu gone ñoo ngi nii fu ñu toll ñoo ngi dëkk ci hôpital yi te xam nga ne jaboot moom wér rek mooy mooy moom bu wér bu ay njabootam wérut mel na ne wér dina. waaw dëkk ci dëkk ci ndox nag xam nga neexut ku la ne neex naa tam ku ko wax ne neex naa da nga caa dëkkul hmm. wala lii ñu jànkoonteel jànkoonte wook moom ñun lii jànkoonteel ñun yàlla ñun ñi yàlla rek lañ koy seere ak Serigne baa ak Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaan nag mu dimbali nu boobaa ak léegi gisuñu kenn bu suñu kenn waatu baa ca kanam lan woo ñun na ñu ñoom bala ñoom mën a dimbali dañoo gis canal yi ñu ko mën a defal te loolu nag mooy sunu moom la ñuy jooy. délégué ñun gisuñu kenn moo tax ñuy ñaan dimbal ci Serigne Mountakha Mbacké koñ bi ndaamaatu li seen jafe-jafe mooy ndox mu bari te nu ñàkk ay canal koñ bi fii ngeen fii ñu taxaw nii koñ bale ca ginnaaw sax moo gën a moo gën a garaaw soo fa duggantey jëru sax wax sa yére ñun ñoo nekk ci digg ndox mi ñun suñuy kër dafa jàlla dogal mu nekk ci digg ndox mi ñu ciy dund lu metti nag amatuñu matériel u néeg suñu matériel néeg bi yàqu na suñu xale moom jàngi moom waxatuñ ko ndax mënoo kuus di yóbbu say xale ñuy jàngi koo xam da ngay di ko tëral ci kaw lal bi muy nelaw bu yeewoo nga wàcce ko xuus ak moom génn ba foo amee kii féex nga toog fa mënatoo jàngi mënatoo jàngal say gone fi mu ne nii ñu ngi toll ci ouverture école yi xale yi war a jàngi ñu war leen a toppatoo nekk ci biir ndox mi ti amuñu ku ñu ci dimbali loolu lépp nag ñu ngi koy biral nag di ko di ñaan ngeen jottali na ko ba sëñ Muntaxa dégg ko ndax koo xam ne ma ngay dimbali waa bitim réew waa Asie waa Europe waa dëkk bii mel nii da gisut su ko gisoon wala mu dégg ko yaakaar naa saafaraam dina fi ñëw. jafe yu bari lañ ciy dund. ndax fi mu ne nii rek koo fi yëkkati woon tànkam rek mun mën a mënatul a sol daal sa tànk yëpp day rocceeku ci biir ndox mi ndax xam ku ne xam na ndox mi salte na te bari na yoo xamante ni yu bari mën na cee am ngay dox di dagg ci biir sa léeg-léeg nga dox dajeeg lu la dagg sa tànk doo xam nooy def. courant bi mi ngi ci biir léeg-léeg foos yi dafay nekk ci biir ndox mi am na ñoo xam ne sax dañuy vider seen foos teg ci biir. yëpp ñu koy dund mu doon lu metti nag ci jaboot ñuy ñaan nag ñëpp dinu ci jàppale ndax fi ne nii nag gisaguñu benn autorité boo xam ne ñëw na fii xool suñu ndox mi wala mu jëlal ñu ci benn solution kon nag ki nga xam ne mooy mooy mooy nday mbili gi muy sëñ Muntaxa ñoo ngi koy ñaan yéen ñi nga xamante ni suñu kàddu ci yéen lañ koy jaarale ngeen biral ñu ko bañ ba mu dégg ko xam ne askanu ndaamaatu ñoo ngi dund lu metti ñoo ngi dund lu tiis depuis 2012 ba léegi ndaamaatu ñaari kafteer depuis 2012 ba léegi nii la ñuy def nawet bu jot dañuy génn ren nag da cee gën a dansé ndax dañ daan génn di làqatu ci sunu euh, sunu dëkkandoo yi waaye léegi nag boo àndee say dëkkandoo génn fan ngeen di làqatu. ñaata kër mën nangu fi bu doon xayma. maanaam bu doon xayma téeméeri kër ak ñeen fukk. waaw téeméeri ak ñeen fukk yoo xam ne ku ci nekk ndox mi dugg na sa kër. xayma nan leen mën a xayma maanaam ci sunu koñ bii rek diggante ñaari kafteer ba ba kër Baay Laat téeméeri kër ak ñeen fukk yoo xamante ne ndox mi génn na leen ñii ñu ngi dund ak ndox mi am ñoo xam ñi am dañuy baas ci kaw nekk fa ak seen njaboot di fa añ di fa reer di fa togge di fa def lépp ndax mënuñoo génn amuñu fu ñu dem ndax këri lëmm munoo munoo génn surtout nga yor ay ay xale. depuis màggal ba léegi bi taw bu metti boobee amee la mbir mi commencé de bi mu commencé teewul gan ñi ñëwoon wax dëgg yàlla góor góorgóorlu nañ ànd ceeg ñun si màggal gi ba mu jeex ñun tamit wantaar nañ ko ba màggal gi jeex tàkk waaye boobaak léegi nag dañoo gisul kenn koo xamante ni sii ni jug pour ñëw dimbali ñu. te it dañ see néew doole ndax euh, dégg naa ñu naan chaque at dañuy ñëw di jox waa koñ bi xaalis moo xam 400 wala 200 mille waaye pour man amul benn njariñ ndax nit ki na nga koy dimbalee yéeg si kaw garab gi di dagg banaana di ko jox muy lekk chaque suur bu xiifee ab jaam sab jaam lay doon rek ñu ma ko mën a waxee. li am solo mooy da koy jàngal fa muy jaar ba yéeg sa garab ga comme yow di lekk de tey jii boo yëkkati woon 2 millions wala 10 millions jox ñu ko n ñu génn leen ndox mi di rombu tëli bii matériel bi. amuñu tamit xalaat bi ñi nga xam ne ñoo am matériel bi am xalaat bi dañ leen di ñaan de yàlla rek tax xaalis bi ñuy yëkkati ngir di ko indi di ko jox nit ñi man boo ma joxee 200000 li ma génn si sam ndox su ma jëndee ñaari camion suuf damay lekk la sa des waaye soo ma soo soo jëlee say matériel ñëw indi teg li am solo ba am solo mooy canal yi nga xam ne moom la ñuy def di ko commencé si biir dëkk bi di ko génn dëkk bi moo nu gën a sonal ndax fa mu départ di ñëw ndox day jeex foofa waaye fu mu toll tout le temps rek ndox day am foofa am solo bu demoon ba fa mu war a yem ñu gas kanaal yi tabax ko commencé dugal tiwo yi di ko indi fu mu romb rek foofa day jeex bu demee ba biir dëkk ba ndox dootu fi am de dëkk bi yaakaar naa yaatu na yaatuwaay boo xamante ni si ni ñeenti xibla yi xibla gu bu buñ fa génne woon ab tiwo ba mu génn du ñàkk ndokk ngi nii dañuy bay bayub dër euh, bayub dër euh, tamit booy dem ngaabu tamit noonu ak faneen ak faneen ñooñu boo leen génne leen ndox mi filtré leen ko dinañ ci bay seenu jur dinañ si naan ndox dootu am si dëkk bi ñee am problème ndox moo xam ne moom la ñuy bayee loolu mooy ab liggéey meeru Touba moom amaana sax mën naa ne xamul ndaamaatu de am na wala amut ndax nit buy liggéey ñu dénk la am réew da ngaa war di wër gox bi boo ko deful bëccëg nga def ko guddi loolu mooy ab liggéey waaye boo toogee sab euh, sab sab bureau kilim yi wër la nit ñi di yónni nit ñi ñëw ña ngay yónni di dem di ñëw duñ la wax li am ñoom na seen poos di fees rek. waaye ñoom li am si dëkk bi duñ la ko wax yow mi nga xam ne nag yaa jiite réew mi yaa war di génn yaa jiite gox bi boog yaa war di génn ñëw de lu toll ni ndaamaatu sax dafa waroon a am waru woon am benn délégué de quartier dafa waroon a am ay délégué de quartier nga xam ni tey koñ bii ñoom bu ñu amee problème moom mooy jug ak tànkam dem ba si mairie bi dem fi mu war a dem déclaré ko waaye ku tedd ki fa mu toog mooy sëñ Muntaxa yëgu ko de bu ko yëgoon sol maanaam am nañ si solution bu yàgg waaye tamit kenn du ko ko wax ndax ñi ko war a wax duñ ko ko wax. de amaana nag lii bu jotee tey dina ñëw dimbali ñu ndox mi juge fi incha allahu rabbal alamin ne nii loolu moo fi sës soo ko wiidee dina fi jóge waaye bu tawaatoon tey taw bu métti rek mu ñëwaat li am solo mooy man damaa jàpp ni ne bu buñ koy defar tëli bi boo ko bëggee jaarale fii defaral ay kanaal ba pare nga ñëw defar tëli bi dootoo am problème kanaal waaye boo defaree tëli ba pare defaroo kanaal dangay ngay am problème tëli tëli ba oto du fa jaar canal ba du jàll xam nga problème bi mooy Sénégal maanaam seenub liggéey tout le temps day des ndax mu ngi mel ni man ma yor benn société ñu denk ma fukki milliards ni ma demal nga defar ma jël benn milliard bi gis ñi nga xam ne ñoo dëkk si koñ ma neexal leen 500000 200000 ñuy tëb di dal naan yaa fi ne ma lekk samay 9 milliards léegi loolu kañ lay kañ kañ lay jàll. ko waaye dañ ko séedee fut maanaam gëm naa ni jox nañ leen ko pour ñu liggéey ko waaye liggéey bi daa commencé gul bay yegg lu commencé mooy yegg est-ce am na ndigalu nekk fii maanaam est-ce que ONAS tamit am na am na place pour ñëw fii di maanaam gérer fi loo xamante ne si war na koo mën a seere tamit loolu laaj la ndax bu fekkoon ONAS am na ko ndax ONAS société bu mag la su ko amoon jàpp naa ni dina ñëw pour mën a liggéey li mu war a liggéey waaye est-ce que am na place bi tamit. ab murit baaxoowul ñaxto danoo jaaxle ndax dëkk bi borom soxlu fi kenn ku ñaxtu lenn liit xewlu rek lañ ko def. waaye nag koñ bii nga xay mooy ñaari capteur tàmbalee ko Kër Baay Laat ba ba ngay dem ci yoonu Daaru Wee dama yaakaar ne ñi yor dëkk bi buñ ŋàbboon seenu tànk dox dugg daañu xam koñ bi li ñuy li ñuy dund lii soxna yi wax lépp mi ngi ci man barki démb rek sowee naa fi ab tali bu ma ca demul woon day faatu kon ku ñu dimbali ci ndox mi lan soxla soxlawul leneen ab kanaal buñ na ko fi mënee defal moonu gënal da ngay xool jumaa ji toll nii ñu ubbi ko di ci jaamu yàlla di ci jàng alxuraan kenn mënatu fee dem. kenn jullatu ji. ngi ci julli ndax mënuñoo ñàkk ba ñu ñu sët ci jumaa ji ñu ngi ci julli waaye kenn jullitu fa ak jumaa ak yooyu kenn mënatu faa dem ñoom ñoom ñi nga xam ñoo sët ci buntu kër gi rek ñoo fi julli waaye keneen mënatu faa dem man mii sama kër nga ne la ca ginnaaw. ah te dama daan ci jumaa ji laa daan julee ji fajar daan julee lépp mënatuma faa dem man ak na ci yem li tàmbalee kër baay laat ba ba dem yoonu dëru wallaahi hachim nii la mel nii la mel koñ bi dara mënuñu xam xam nga mbedd mu tol ni benn lumière bu fa nekk amu fi ba ba ngay dem tabala mbay sakk benn lumière bu fi ñuul nekku fi maanaam nun sun bopp daal dañuy sàkku ndimbal ab taalibe lan dun ñax ñaxtu wuñu danoo bëgg ku ñu dimbali ndax noonu weesu wuñ sunu daara jeenu nekk deret déedéet noonu weesu gun sunu daara ji noonu yàlla danoo bindee eh, dunde rek sunu ñax lépp lu nu daal noo ko liggéeyal ci sunu loxo bii waaye ndimbalal kenn daal mësuñu ko man sañ ma wax loolu waaw